ngay def ay promesses yaakaar naa ne ce discours là populiste ce discours là démagogue je pense que ñun loolu on en a assez donc je pense que loolu laa amoon si grosso modo une déception totale un discours qui n'est pas en phase par rapport aux réalités du Sénégal et une, un discours aussi qui n'est pas en phase par rapport à sa posture. Parce que c'est un président qui a cumulé deux mandats et la conscience est très claire sur ce point-là, donc on n'a pas besoin de ses promesses. Je vous remercie. dama leen bàyyi ngeen continuer ngeen wax le temps que waa Benno Bokk Yaakaar yi mën a jël note euh, mën leen répondre euh, déglu nga discours bi wala parce que yaa ngi woon ci concert de casserole bi. non dégluwuma discours hmm. parce que discours bi comme ni ko Badiane waxee ñëpp xam nañ ne répétition lay doon parce que. quand même dégluwuma discours tey bi mais jël naa temps wu déglu discours yi mu def yëpp entre 2012 ak léegi. discours yëpp da ngay gis ne dafay am ñaari problème problème de pertinence ak problème de portée dinaa si ñëw parce que discours à la nation ñun dëkk bi constitution bi moo ñu tënk j'ai l'habitude de le nga xam ne mooy loi fondamentale bi après ay loi tegu ci suuf ay décret tegu ci suuf moo wax. en son article 48 que le président de la République peut adresser des messages à la nation le fait que 31 décembre mu nekk fin d'année bi c'est une tradition républicaine muy def un discours donc discours bi day pertinent trop trop doon na gën mu bañ a nekk un bilan économique ndax toujours bu ñëwee man déglu ma ko mais li ma la wax nii doo ci dindi dara day def le bilan économique maanaam sur le plan du transport dans le domaine énergétique dans le cadre de la macroéconomie la croissance dans le cadre des finance publiques lu jëm ci agriculture lan la réaliser donc bilan lay def sur le plan sociale dafay ñëw wax subvention yi mu def te te mu tuddal la bourse de sécurité sociale wax la éducation wax la santé. <laughs> kon da nga lire dans les pensées de Macky Sall. te dégluwoo sax discours bi non non li ma bëgg a wax. li ma hmm. bëgg a wax. Hmm. mooy bilan lay def. mais ce bilan là à chaque fois bu koy def dafay fàtte. li ëpp solo mooy le bilan immatériel parce que chef de l'État la c'est vrai qu'il est à la tête du pouvoir exécutif mais il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire te moom mooy le chef de l'État moom mooy la clé de voûte de toutes les institutions aujourd'hui dans le débat public lan moo ëpp solo justice ñi sénégalais yi di waxee mais président de la république discours à nation du ko def ma jël beneen exemple boo jëlee tey moom dans le cadre même de son bilan parce que moom buy def bilan li mu war a def mooy tàmbalee par rapport ak vision parce que sa bilan da nga koy koy def mu adéquat par rapport ak lan mooy sa vision vision lan la woon plan Sénégal émergent nga xam ne mooy la référentiel des politiques publiques ñetti axe la premier axe bi transformation structurelle de l'économie la deuxième axe bi protection sociale la éducation santé capital humain et cetera troisième axe bi bonne gouvernance la renforcement des institutions paix et sécurité aujourd'hui Sénégal at bi gis nañ fi lu jéggi dayoo ay braquage dans les gendarmeries ay attaque à mais armée ak ay armement yu lourd insécurité bi am moi qui habite à Grand Yoff xam naa insécurité bi am mais loolu noonu question yooyu à chaque fois du ci débattre jëlal un domaine aussi sensible que l'industrie parce que ñoom seen PSE bi ay phase la y'a PAP bi nga xam ne moo jiitu woon entre 2014 ak deuxième phase bi nga xam ne moo nekkoon 2018 2023 nga xam ne après pandémie bi dañ ko réajuster muy PAP 2A ñu réajuster ko ne dañ koy accélérer boo demee dans les pages vingt quatre vingt cinq et vingt six daf lay naan réajustement bi lu ñu bëgg mooy enseignement yu ñu tiré ci Covid 19 mooy dëkk bu nekk da nga war a compter sur ses propres ressources ñu ne ñett yii nañ war a basé wu pour dëkk bi moom boppam souveraineté alimentaire souveraineté sanitaire ak souveraineté pharmaceutique. kon donc loolu soo ko bëggee am industrie bu fort moo la koy am lu tax toujours dans ces discours du wax ci industrie wala bu ci waxee tamit donc du ci yaatal donc loolu mooy par rapport à la pertinence par rapport à la porte du discours gis nga chef de l'État sooy wax gis nga wax am na solo mais da ngay fexe ñu dégg la melal noo xam ne soo bëggee wax ñëpp dañ lay déglu mais su fekkente ne li nga xam ne mu ëpp solo ci dëkk bi mooy le le le le volet démocratique c'est-à-dire askan wi ñoo la dénk seen souveraineté dans le cadre de la consultation populaire et dans le de la respiration démocratique mu am périodicité boo xamante ne da nga war a jàkkaarloog sénégalais yi soumettre ci seen évaluation ñu tànn la question du mandat est un est une question cruciale et palpitante mm. par rapport à la portée du discours aujourd'hui deux semaines yi lan moo tenir en haleine le débat public c'est le rapport de la Cour des comptes gëw ma ne su ciy wax dina ci yaatal waaw alors que dans les autres nee na bi dina continuer mais non soxlawuñ loolu waaw xamuñu dafa ne ces efforts nous ont donné maintenir le coup plus d'autonomie en permettant de couvrir 80 pour cent des dépenses publiques internes à l'État dans de bonne gouvernance des affaires publiques l'exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la pandémie Covid-19 la matière xam nga loolu kan moo koy wax ko mm. koo xam ne rapport institution bu mel ni nag nga xam ne loi moo ko institué am ay innovation majeure déclaration de patrimoine am ay innovation majeure pouvoir de saisine directe du procureur de la République 40 rapports ba léegi parquet mu ngi ko bloqué et le parquet est sous la tutelle du ministère de la justice moi je travaille dans la justice kon kooku su waxee ne rapport yi dinam am suite mënu ma koo gëm parce que daf ma dig ndékki joxuma ko dig ma añ def joxuma ko su ma diggee reer lan ma koy gëm beneen bi mooy par rapport à la portée du discours bu fekkee yow loo diggee doo ko def des promesses toujours non tenues parce que à chaque fois il a l'habitude de rappeler l'équité territoriale bokk na ci slogan yi nga xam ne da koy yëkkati demal nga dem si surtout ANSD nee na Sénégal taux de pauvreté bi non seulement nombre de pauvres dafa yokk parce que taux bi wàññeeku na en valeur proportionnelle mais en valeur absolue le taux dafa passé de 5 millions 832 mille pauvres dem ci 6 maanaam demande bi dafay yokk donc dañuy dem vers une 37 pour cent yooyu ñu lay wax mooy taux de pauvreté bi dañ ne ne en milieu rural c' est 53 pour cent alors qu'en milieu urbain c' est 19 pour cent. mais gouvernement bi mi ngi contesté chiffres yooyu. li ma ah. bëgg non non c' est ça ah, waaw mais il arrive xam nga hmm. li ma la bëgg wax. mooy su fekkee da woote équité territoriale territoriale à partir de ñu ñëw te statistique yooyu wane contraire bi ça veut dire que kon sa équipe sa sa politique yi nga defoon pour territorialisation des politiques publiques pour désenclavement pour décentralisation mooy dafa échoué ma jox la beneen statistique. rapidement aujourd'hui le taux d'électrification en milieu urbain c'est de 96 pour cent en milieu rural c'est 58 pour cent xam nga mooy lan cest Sénégal ñeenti village yoo jël. lu mat lu mat li li ci am courant matuñ juróom-benn parce que bu ñu nee juróom-benn mooy 60 pour cent cest à ñeenti village yoo jël ça ay village la yoo xamante ne ils sont dans l'obscurité dans l'obscurantisme mënuñu am télé mënuñu am climatiseur mënuñu am euh, réfrigérateur. mënuñu am leneen te ñun ñii dëkk fii ci fan lañ tolloon en 2012 2012 fan lañ ci tolloon. mais li ma bëgg a wax mooy. en réalité waaw nga def comparer chiffre ba muy ñëw ak ak léegi. non xam nga problème bi lan la. dafa am ay gap yoo xamante ne mënoo toog ci Sénégal. Hmm. nga euh, dérouler pendant plus de dix ans ñu votel ay budget yu dul jeex. nga leb ba yow sa taux d'endettement aujourd'hui mu ngi ci 67 pour cent parce que l'encours de la dette je parle pas du service de la dette naa si ñëw bu ñu duggee si bilan bi l'encours de la dette aujourd'hui ñu ngi ci 11 300 milliards loo xam ne Sénégal am na ko ci bor loo xam ne maanaam décaissé na ko te fayagu ko ci bor mais loolu yëpp soo ko defee mobilisé ko di nga am ay réalisation yoo def mais li ñuy natt mooy réalisation boobu nan la toll par rapport ak askan wi seen demande li ñuy natt mooy réalisation yi est-ce que nga koy def jëloo marché yi def yaay may ma ñeex mais est-ce que réalisation bi nga koy def politique de financement bi baaxoon na te on doit porter compter sur nos propres ressources tey boo juree le budget du Sénégal lu ñuy wax la besoin de financement mu ngi toll ci deux mille trois cent ñun kañ nañuy moom suñu bopp sur ressources internes donc voilà les véritables questions qu'il faut se poser et à chaque fois bu ñëwee discours am day ñëw def du bidouillage du colmatage du rafistolage. moo tax sénégalais yi duñ ko déglu ñu dem tëgg seeni bool. waaw euh, Mame Mbaye Niang euh, jox la kàddu gi euh, gars yi nee nañu moom président au lieu que muy def bilan li mu waroon def daal mooy déposer le bilan. oui merci waaw Cheikh Dieng qui nous a rejoint tamit di nuyu Cheikh Dieng bu PDS. ci tool bi muy soog a ñëw profito tamit euh, sànq dañu nuyoo rek di jaale suñ mbokk chrétiens yi parce que kilifa ci seen diine bu mag dem na di souhaiter aussi sénégalais yi déwén yàlla may ñu ndam yàlla may ñu wér ak wérle ak sutura ak jàmm di wax ni que peut boo dee xaar dara ci wax boo ko gisul da ngay xàddi eh, bu fekkee ni que da nga jàpp ni que discours bu président de la république 31 décembre mu war a wax ak askan bi war a wax ak askan bi liñ nar a def ci at mi ñu ñëw yow nga bëgg ko tënk ci benn point rek di xaar ay débat politique wax dëgg yàlla di nga am déception mais amul benn sénégalais tey boo xam ni réew mi rek a la ñor bu munul dégg li président wax am euh, projection bu rafet ci li di am 2023 parce que amul benn wàll ci li ñuy dund boo xam ni waxu ko muy ci wàllu wérgu yaram ci wàllu njàng ci wàllu économie boo waxee économie laal nga bànkaas yi nga xam ni yépp mooy def économie boo waxee économie laal nga pêche laal nga intique laal nga agriculture agriculture nag dafa doon loo xam ni euh, lu am solo la ci réew mi ndax téeméer yoo jël fii ci réew mi mën nañ jàpp ni que juróom-benn fukk yi ci loolu la ñuy dund ci loolu la ñuy liggéey donc jàpp naa ni fu ci nekk wax na fam ko jëlee lim ci def ak fañ ko yéene yóbbu ci at mii di ñëw waaye plus particulièrement ci euh, programme euh, prioritaire bi euh, triennal bi donc jàpp naa ni président de la république wax na mais bu fekkee ni que yow sama sama xaritu grand parti bi moom nee na du wax du def politique structurelle defe naa dëkkoo ci réew mi politique structurelle mooy antici nee na du anticiper ci problème yi ñu am jël exemple ci pêche mais damay jàpp damay fàttali ni que réew mi projection ak politique bu mucc ayib ak PSE bu valable moo tax liñ fi fekkoon ci énergie tey problème boobu amul bu amul woon ay investissement bu amuloon ay liggéey tey jii nii 2012 mënuñu woon def lii donc loolu politique structurelle la mooy xool wàll ak fànn yi nga xam ni réew mii dina ci am ay jafe-jafe nga anticiper ko nga anticiper ci def ci investissement yi ci war pour mu méngoog ni nit ñi di màggee ak ni soxlo yi Euh, soxla yi di di di di yokkoo ci wàllu woowu loolu moo am ci ndox mi ndox mi bu fekkoon amul woon politique structurelle ak stratégique mais kon tey Dakar kenn du am ndox mais KMS 2 KMS 3 de de dessalement di anticiper ci ay problèmes yoo xam ni d'ici quinze ans la problème mu mobilité urbaine président Wade bi mu fiy jógee def na ay autoroute de def na 36 kilomètres d'autoroute mais tey investissement bi am ci mobilité bi ak ci tali yi ak ci autopont yi bu amul woon mais fii ak dix ans ay problème lañu am ñu miser sur vingt ans loolu moo tax ñu jël indi terre xam ni que tali yi ak oto yi rek mënatul régler problème mobilité ñu miser ci transport de masse si c'est pas bu fekkee ni ko du loolu mooy politique structurelle xaw ma lan mooy politique structurelle bu fekkee ci wàllu napp bi nga jël nga ni dañu jaay géej gi bu ñu nax nit ñi Union européenne li mu fi am ci bateau matul dix bateau yi ci des yépp yi bat pavillon sénégalais Union européenne jën yi ñuy napp gaalu Sénégal yi duñ fa egg donc buñ nax nit ñi buñ wax ni que dañu jaay géej gi géej gi kañ lañ ko jaay lu dul nappkat yi fi nekk di wut gaal di xëy di dem avant Macky Sall di ñëw ay pêcheurs sénégalais dañ daan ut ay licence di dem Mauritanie di dem Guinée Bissau pour di napp parce que ñu ci bari ci ñun ci loolu la ñuy dunde et suñ consommation ci jën dafa bari léegi ndax jën am na wala jën amul jàpp naa ni politique gu euh, gën a euh, sàmbar gi euh, xool géej gi ak doxalin bi mu ëpp rigueur ci ci ci ci ci ci ci euh, sàmm géej gi defe naa war na am repos biologique war nañ xool borom xel yi ñu ngi ciy xalaat mais xëy rek toog ci télé amul politique structurelle waa donc ñii dañuy xëy di taf yëngal rek réew mi taf yëngal bu fi amoon xamal ni taf yëngal bu baax parce que amul benn wàll ci bu ñuy dund am na ku fi wax Euh, maître maa ngi ko dégg mu ni xawma ma woy euh, dëkk bi dara dara doxul ci wàllu ndox ña cinq villages quatre villages mais baax na ngay xam fan lañ jóge bu fekkee ñaari village ñoo amoon ci fukk tey juróom-benn village am mooy jéego am na ca ñaari village independance la ba 2012 deux villages sur dix indépendance ba 2012 2012 ba 2020 ñu egg ci cinq virgule six village mais donc jéego am na yaa parlé wax na ci waxu ndox am na ay villages yoo xam ne amuñu ndox bu ñu naan mais loolu on l'assume mais ñaata nit ñoo dul woon naan ndox mu sell tey ñooy naan ndox mu sell commencé ko fii par Dakar consommation bi c'est passé de deux cent vingt vingt mille mètres cubes jour aujourd'hui bu ñu amul quatre cent mille mètres jour fii ak cinq ans ay problème day amaat donc ku xam c'est booy wax dangay xam léegi naa sama xaritu PDS bi wax ni ko wuy diplomatie bi xaw ma lan c'est que baax na ngay wax ci loo xam G20 Macky dugalu fa Sénégal Macky Sall da doon xeex jëfandikoo diplomatie Sénégal pour que Union africaine am fa chaise Union africaine en tant que union mën fa toog boo nee yeneen dëkk bokkuñu ci Afrique Afrique du Sud du Afrique la bokk Afrique du Sud du Afrique la bokk. Afrique du Sud membre G20 la mais li mu doon liggéey en tant que président Union africaine. mais cër la ci Sénégal sag la ci Sénégal président wu Sénégal ànd ak diplomatie Sénégal fexe ba euh, Union africaine mën na toog ca gv parce que ku wax dëgg ca wax xam nu àddinay doxee ku xam nag laa wax de xam ni G20 fa la ñuy joxalee. fa la ñuy décider ni économie àdduna bi di di di doxee donc moom bu fexee ba Afrique am fa place commencer sumb ay jéego pour que Afrique am ñaari place conseil de sécurité defe naa loolu sagu Sénégal la. loolu day wane ni que diplomatie Sénégal beneen bi ma bëggoon a wax bon euh, maître euh, wax dëgg yàlla ku moom nee dégluwul ku dégluwul nag munoo wax parce que fii discours bi lañ fiy lañ fiy débattre. donc munoo ñëw ak say idée empirique ak say idée yoo xam ni ça ne repose sur rien bëgg def affaire u nihiliste man je veux bien ñu débattre boo nee ma Macky Sall li mu wax ci éducation amul man ni la 2012 pratiquement ñaari université lañ fi fekkoon tey am na yeneen ñaari université yu pare su mën nañ yeneen ñaari université boo nee ma euh, maa ngi ko dégg mu naan euh, suñu suñu wax yépp ci décentralisation équité mais attends lii mooy équité lii mooy équité PUMA PUDC moo créer équité territoriale parce que investissement yi amoon ci ci réew mi yépp mi ngi yemoon ci Ndakaaru Thiès tuuti Saint-Louis ak peut-être ñu ñamal Casamance investissement public yi amoon yépp tey fierté la ñu mën a wax ni que deux mille cinq cent vingt six kilomètres lañ def 2012 ba léegi fierté la ñu mën a wax ni que 6673 kilomètres de piste le PUDC def. waaw léegi Mame Mbaye Niang est-ce que xel mën na nangu ak euh, actualité bi fi mu toll tey ñaari actualité majeure ñoo dominé tey actualité bi Sénégal ah. mën naa wax si at bi benn bi mooy question mandat bi président waxu si benn yoon beneen bi mooy rapport Cour des comptes président benn phrase la si wax loolu est-ce xel mën na kaa nangu mais mais c'est que danaa la acteur politique yi ñi nga xam ni politique rek mais ñooñu ñooy doon xaar ay naan ay troisième mandat ak ay deuxième mandat. askan bi tamit. déedéet non defal ndànk askan bi li muy xaar mooy jafe-jafe yi mu nekk mu génn ci askan bi li muy xaar mooy ceeb bi muy jënd ñu mën ko stabiliser askan bi li muy xaar mooy courant bi ñu mën ci jot ca mu askan bi li muy xaar. mooy est que euh, gerte gi ñi ñi bi baykat yi bay ñu mën ko jënd askan bi li muy xaar mooy ku feebar wala def dem def jalis man ko fa fekk bu fekkee ni ci rapport bi ngay wax mais rapport bi président nee na yoon yaa ko liir léegi mais kii dégluwul ku dégluwul nooy xamee gouvernement bi génn na expliqué nañ wax nañ rapport bi lan moo ci nekk lu ñuy nëbb rapport bi gouvernement du Sénégal moo ko demandé gouvernement du Sénégal moo ko publier waa xanaa kay li ngay publier yow li nga demandé yow ñu publier ko xanaa kay nëbboo ko parce que munoo wax ni génn leen ko ba pare di ko nëbb ci mille milliards yu ñu gérer cour des comptes rapport bi mu génne nee na 6,7 milliards la wax ni que leerul dañ ko war a leeral 6,7 milliards yi boo ko jëlee 2,5 milliards yi ci masque yi la 2,7 milliards ci njëndum ceeb la yeneen yi ci des yu ci ëpp ay ay ay ay ay ay ay euh, ay euh, problème de nan lañ koy waxatee problème d'incompréhension ou de présence ou de réception mu ni yii dañuy dem conseil de discipline budgétaire heure bu cour des comptes defe amee c'est que bii moo leen intéressé mais daaw am na ñu demoon cour de discipline budgétaire cour des comptes daawaati géej am na ñu fa demoon am na ay maire yu fay continuer di dem di fay 300 litres essence hmm. information judiciaire bi mu bind mais tey tey tey tey tey dégg nga ministre de la justice ni ko saisir nañ parquet bi li ñu ñi xamul mooy cour des comptes bi génne rapport bi ci boppam président cour des comptes mooy bind ministre de la justice pour saisir ko hmm. mais du président mooy joxe wala ministre de la justice mais ku xamul nag toog di wax di wax di wax di wax di wax baax na li ñuy wax ñu xam ko baax na li ñuy wax ñu maîtriser ko ñu bañ a toog kilifa réew mi wax nga nga toog ci yaa ma neex rek man d'accord naa qu'on discute ku ni ma terre bi c'est pas pertinent nga ni ma terre bi c'est pas pertinent ma ni la terre bi ça transporte soixante mille sénégalais yu daan def quatre heures de temps pour jógee Tëngéej ñëw Dakar léegi vingt cinq minutes la ñuy def nga ni ma li ngeen def ci tali yi baaxul ma ni la def nañ fi 18 autopont nga ni ma li ngeen def ci sante ma ni la 8 hôpital lañu fi fekk tey ñi ngi ci 20. nga ni ma dispensaire amu fi ma ni la dispensaire yu yokku na mais di wax waxi problème de gouvernance mais président Macky Sall moo njëkk a créé OFNAC bi muy wax président makisal Sall moo jox gëdd bi cour des comptes ren am 97 ba 2012. cour des comptes dañu bañoon mu évoluer am autonomie bi mu am waa ki l'encours de la dette le service de la dette ak le besoin de financement encours de la dette moom laa doon wax sànq ne mu ngi toll ci 67 pour cent man nag du ma déglu Boucounta Diallo du ma déglu ministre bi man ki may déglu mooy le ministre des finances et du budget seetaan marathon budgétaire bi yépp pour cent la moo toll ci 11 300 milliards notre PIB c'est 24 milliards de dollars calculer leen ngeen def bu dee aayoo leen l'encours de la dette foofu la toll le service de la dette mooy chaque année li ngay génnee ci sa budget pour fay bor yi nga leboon xam nga si ñaata la toll moo frère Malaw nee na 424 milliards. pour intérêt. merci beaucoup intérêt kese xam naa ne tout à fait merci beaucoup xam nga lu tax parce que dañ ko war a gën a leeral intérêt yi moo toll ci 424 milliards mais bor bi ci boppam. Hmm, hmm, mu ngi toll ci 1200 milliards. maanaam 1600 milliards dinañ ko génnee suñu gafaga di ko fay ci bor. le besoin de financement maanaam li ñu soxla suñu budget loo xam ne mu mënuñu ko financer lu dul par par des recettes par des ressources extérieures mm-hmm. mu ngi toll ci deux mille trois cent milliards notre endettement n'est pas soutenable loolu mooy dëgg doo ñëw rek naan UEMOA nee na ma soixante-dix pour cent loolu ay waxi xale la beneen bi des mooy politique d'endettement bi nga am xam nga emprunt ñaar la dafa am ay emprunt concessionnel ay emprunt non concessionnel emprunt concessionnel mooy ay bor boo koy leb maturité bi maanaam mën nga toog 40 ans ba 50 doo ko fay beneen bi mooy soo fay da nga koy fay ci ay taux d'intérêt yu ndaw ñoom emprunt yi ñuy jël ci ay marché financier dañuy lem lépp ci ay eurobond dañuy nekk donc c'est des emprunts qui ne sont pas concessionnels li ñuy fay dafay bëri intérêt yi dafa exorbitant fi may daanelee ci bor bi mooy destination wu bor bi soo lebee ni monsieur le ministre Mame Mbaye Niang soo lebee da nga koy dugal ci industrie soo lebee da nga koy dugal ci secteur yoo xamante ne dinañu booster la croissance mais une croissance qui est qui n'est pas extravertie une croissance qui est endogène mais su fekkee da ngay leb dem tabax ay estate baax na mais du loolu kese moo waroon nekk destination bu fekkee da ngay leb def ay réalisation faramineuse pour puugaréewu pour bàqu train boo xam ne fii ak jam ñaajo lay yem boo ko yokkee mbuur lay yem ban impact la am tey sénégalais bi bu ko jug dem mbuur mbuur du problème avanter est-ce que dem mbuur problème la man samay kilifa ci administration xam naa si ñoo xam ne mbuur nañuy jugee di ñëw te loolu Abdoulaye Wade moo ko fi def problème bi kon dem mbuur nekkatul problème dans ce pays donc bu fekkee destination wu bor bi defoo ko ci ay secteurs yoo xamante ne mën na tax sa dëkk moom bopp sa bopp ci leb ngay dëkk parce que leb nag bu fekkente ne mënu la jàppale pour nga passé wu de la dette dette boobu noonu dalay rey rek parce que dalay as dalay asservir beneen sujet bi nga xam bëggoon naa ñu wax si mooy Cour de comptes parce que je crois que Bougounta Diallo moom am na loo xam du ma ko ko baal. mën naa baal leen ni ministre Mame Mbaye Niang waaw Bouna Kanté. voilà Bouna Kanté excuse-moi. ba pare di ci wax avec fermeté. non baal ma baal ma nag franchement loolu. comme baal ma mais loolu c'est pas grave. bon c'est la première fois ngeen ngeen tase ci plateau aussi ah. loolu mooy problème bi. mais conviction bi mu àndal assurance bi ci li muy wax. conviction bi mu àndal mais loolu moom loolu moom conviction bi ak assurance bi. waaw ci li muy wax xamul ci dara mhm. loolu moom dama ci expliquer bu baax parce que loolu moom loolu moom c'est su dee may ñëw ci débat bi quand même suis pas censé xam ñan la parce que ba ma may dugg ci plateau bi xaw moo ne ministre Mame Mbaye Niang yaa ngi fi xaw moo ne Malaw mu ngi fi xaw Badiane mi turam ci plateau bi laa xamee donc loolu moom maa ngi ciy jégalu bu baax baax quand parce que c'est pas normal mhm. mais li ëpp solo mooy Cour des comptes moom wax na ci parce que juriste la que Euh, am na loo xam ne du ma ko ko baal article 57 bu cour de comptes moo wax lan mooy faut de gestion faute de gestion du ay ñàkk respecter procédure 16 incriminations nañu tudd ne yii yëpp c'est constitutive de faute de gestion mais est-ce que détournement mooy faute de gestion. non non non no fait non la question bi ñu doon werante non non non. nañu wax li ñuy wax. faute de gestion faute dañu la détournement. du faute de gestion du benn. loolu la ñu wax man maay wax. waaw mu bàyyi ma développé. non a jaxase wax di rek euh, bàyyi ma expliqué rek naa la expliqué continuer détournement détournement mën na nekk un détournement d'objectif comme mu nekk un détournement de deniers publics mais problème bi mooy lan moo waral nga def cette faute de gestion est-ce que xam nga ne benn comptable public wala benn agent public mën na def benn fait par exemple mu fay dépense ci koo xamante ne exécuté wul contrepartie wu projet bi c'est une faute de gestion ñu traduire la devant la chambre de discipline mu def la amende mais en même temps ñu xool ne nekkate da amoon ay intérêt indirect ñu engage sa responsabilité en matière pénale ne escroquerie portant sur les deniers publics te loolu ak détournement deniers publics ñoo ànd dama la bëgg a wax non non non non non cest à si loo xam ne maîtriser woo ko xam nga tax pas de qualification de cest dire le même fait le même acte le même acte. oui moo constitué moo constitutif de faute de gestion devant la chambre de discipline financière. ñu la ay amende parce que amende rek la mën def. le même fait le même acte mu débouché aussi sur des poursuites pénales premier président bu cour des comptes. parce que boo parce que boo demee tribunal engagé sa responsabilité tëjee pour escroquerie portant sur des deniers publics. mën na nekk wala mu nekk te escroquerie portant sur les ah, deniers publics ak détournement de deniers publics boo demee <laughs> pénal di nga xam ne ñaar yooyu dañ leen assimiler parce que ñoom ñoo yem maintenant Cour des comptes nee président Macky Sall bàyyi ko bu bàyyi ko mu dafa wax ci affaire renforcement dafa wax ci affaire renforcement Cour des comptes hmm. gis nga boo demee France ngay xam ne Cour des comptes yu ñu yor fii respecté naa leen trop parce que xam naa magistrat yu fa nekk liggéey bi ñuy def mais seen doole dafa des parce que l'effectif théorique fixé par le décret de 2013 c'est 100 magistrats ce que ñooñu mën nañ contrôler lu ñu fi am ci ay établissement public ci ay structure de l'État concentré comme déconcentré ci ay société nationale ci ay ministère mais loolu dafa dafa néew boo demee France seen Cour des comptes dafa am lu ñuy wax les CRTC mooy chambre régionale et territoriale des comptes 23 CRTC nga xam ne à l'échelle régionale dañ leen déconcentré ñoom ñi nekk ay Cour de comptes yu ndaw doog a ci Cour des comptes gis nga réforme yooyu bu ngeen ko bu ngeen ko deful moo leen taxaw devant les sénégalais pour wax ne yéen am ngeen obligation transparence wax nga ITIE ITIE e e, man joxuma ko benn crédibilité et ça m'engage pour lan le président du commité national de l'ITIE kan moo koy tab président de la république yoo xam ah. nga ne Eva bien sûr le président du comité national ITIE président Rabil moo koy tagg tab Ismaïla Madior Fall nekkoon na ko Mankeur Ndiaye nekkoon na ko Eva Marie bi nga ni joxoo ko benn crédibilité. ko joxul crédibilité naa la wax lu tax. Ah, man maa la wax lu tax. waaw nañ déglu ay argument mais loolu mën na engagé. il a a ses la neexee nga jox ko crédibilité non non non ma déglu ma du neex ba man nga wax ma dagg la bàyyi ma ma yeggali te su ma paree nga doog rebondir n'est-ce pas. loolu mooy courtoisie loolu mooy élégance. non non mais bu non non non non non c'est parce que c'est dangereux. bàyyi que c'est dangereux yow ah, leen ko mu joxe ay argument après yow boo ko neex. mais on est en démocratie. non mais c'est non non non bu na bàyyi leen ko moom mu continuer raisonnement am. allez allez nga moom vraiment monsieur le ministre xam nga tey euh, ITIE kan moo nekk à l'origine c'est Tony Blair yoo xam nga Tony Blair c'est une personnalité sulfureuse ñaata poursuite nañ engagé ci moom biir Royaume-Uni bi mu jiite woon en tant que premier ministre ñaata poursuite judiciaire nañ engagé ci moom après ñaata la fen parlement bu Royaume-Uni la chambre basse comme la chambre haute mooy chambre de communes ak chambre des lords ñaata yoon lañ lañuy gis ne li mu leen doon wax dara du si dëgg ci affaire u kooku moo nekk à l'origine de la création de l'ITIE ITIE tey dëkk bu mel ni RDC ak li fa am ci lu jéggi dayoo ci wàllu mine dëkk bu mel ni Congo Brazzaville ci pétrole bi dëkk bu mel ni Nigéria ITIE nee na c'est des pays qui sont réputés conformes comme le Sénégal man institution bi duma ko jox crédibilité loolu mën na engagé kenn duma ko forcé yéen a ngi wax ci gestion hydrocarbures yi aujourd'hui boo jëlee Sénégal li ñu doon xaar ci pétrole ak gaz yëpp ñu ñëw ñu ne la 2023 li ñuy projet projeté ci ay recettes yi ciy jugee 51 milliards la parce que lan stratégie bi moo baaxul type de contrat yi ngay signé mooy ay contrat de concession en matière minière naa si ñëw en matière pétrolière ay contrat de partage de production yoo xam ne le cost oil muy le coût de la production mun na dem ba 75 maanaam ñeent xaaju pétrole bi ñett yëpp mun na dellu ci compagnie bi mm-hmm. benn xaaj bi des nga doo ko séddoog ñoom fooy amee loolu moo waral le ministère des mines seen document de programmation pluriannuelle des xam lu ñu lay wax li ñu lay wax mooy redevance minière yi taux de recouvrement bi au Sénégal c'est 60 pour cent autrement dit lu ñu war a jël ci ay redevance minière bu ñu dee fukk juróom-benn yi rek nañu jot mais bu fekkee loolu da nga koo la ci say ressources mais li des mooy lépp est-ce que yaa ngi comprendre articulation may def entre endettement ak ressources naturelles yi nga xam ne moom ngay jël di ko tayle ma daanelee ci justice ak liberté justice tollatul foo xam ne ay hommes politiques ñooy taxaw naan justice dafa war a am indépendance Union des magistrats du Sénégal entre 2017 ba 2021 li ëpp ci seeni séminaire xam nga la moo nekkoon thème bi l'indépendance de la justice ils ont parlé de l'indépendance institutionnelle et de l'indépendance personnelle indépendance institutionnelle mooy magistrat du siège su fekkee un magistrat nekk na Podor ñi ne ko jaaral fii mu bañ ñu daal di ko jël affecte ko pour nécessité de service te caractériser wuñ ko ba quelques années après Cour suprême di casser décision boobu noonu loolu garantirul indépendance su fekkee dans ce pays ba léegi dans notre code pénal et dans notre code de procédure pénale am na infraction yoo xam ne procureur bu la ko poursuivre su requérir le mandat de dépôt le mandat de dépôt il est systématique dañoo dañoo weñ loxo juge bi ki xam ne li may wax article 255 ki xam ne li may wax te boo defee demande de mise en liberté provisoire parce que loolu lañ jiiñ ay Pape Alé Niang boo ko defee bu dee parquet dafa opposé wu le juge ne alors que le parquet est une partie au procès muy mu lay tëj di la tijji ci wàllum instruction réforme yooyu tant que defuñu ko mënuñu wax ne on a une justice indépendante ça ne remet pas en cause l'indépendance personnel parce que je parlais d'indépendance institutionnelle l'indépendance personnelle du personnel judiciaire magistrat greffier et cetera liberté yi nag liberté yi dem nañu ba Sénégal liberté ah, parce que dafa am liberté publique am liberté individuelle liberté publique mais autorité administrative yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy encadrer mais liberté individuelle moo gën a sacré que liberté publique liberté de culte dem nañ ba koy restreindre dans ce pays nit sol ja grand boubam nem ne dafay dem julli ji nga ne ko doo dem julli ji jumaa parce que dañoo jàpp ne da ngay dem ci benn marché boo xamante ne c'est non autorisé këram waruñ mun munuñ sax dem nduggi à 9h sans l'ordonnance d'un juge d'instruction boo xam ne bu la assigné à résidence c'est avec surveillance électronique te loolu lu bees yooyu moo am ci réew mi Sénégal mu toll situation bu critique la situation bu grave la c'est un bilan macabre c'est un tableau sombre dañu koy wax tey dañu koy wax suba te kenn mënuñu ko empêcher jërëjëf Ngagne euh, Mame Mbaye est-ce que yaakaar mën na am ci 2023 bi ñuy dugg merci beaucoup euh, vraiment débat bi moom c'est-à-dire li nga ciy njëkk a jëlee mooy c'est c'est dommage ah mooy nit di wax loo xam ni wax dëgg yàlla li muy wax teg ko fenn ba pare ñu bëgg